Bienvenue sur Salam Vision. alhamdulillahi allazi ja'ala rahatal qulubi bi madhil habibil mahbub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 ci barke yonent ba alayhi a dem ba Tiwaawoon ziyaara Sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla sàmm ko ak nga wax Cheikhul Hadji Malick yëpp noonu lañu def dem ba euh, Touba fekk fa Sëriñ Muntaxa Mbàkke ziyaar ko ñaanal ko yàlla wér ak wér la ak njabootam ak borom Touba gi fekk fa Sëriñ Cheikh Tidiane Niass ziyaar ko ak njabootam ak noonu lañu def dem ba Medina fekk fa Sëriñ Maye Niass ziyaar ko ñaanal ko yàlla wér ak sutura ci barke yonente bi alayhi salaam ak njaboot cheikhul islam bi yëpp dem ba laayeen ziyaar xalifa ba ñaanal ko yàlla tawfiq ak taysir dem ba canaba ziyaar xalifa ba dem ba mooy taaleen ziyaar xalifa ba ñaanal ko yàlla tawfiq ak taysir ci barke yonente bi alayhi salaam nuyu waa biir réew mi nuyu waa bitim réew yàlla defal leen jàmm defal ñu ko ci barke sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu lañu def di nuyu sunu yaayu bopp Adja Penda Sy ca parcelle ñu nuyu bu baax di ko ziara ak ki njabootam di leen ñaanal yàlla tawféex ak ci barke rasulillahi alayhi salaam noonu la ñuy def dem ba nuyu sunu soppe sunu xarit mu ngi France ñu koy ziara parcelle unité 7 ñu koy ziara nag tabaarakallah sunu soppe sunu xarit. moom mooy paat ca France ak doomam ja suñu torondoor Mouhamed ak soxna sa ziyaara mboolem soppi si na Mouhamed yi bay Babacar Sow ca Mboro ñu ngi koy ziyaara fas yéen a ànd ak yéen ci seen jotaay keppaaru si na Mouhamed bi ngeen xam ak seen xarit oustaz Mouhamed Ndiaye Sopé bi fas yéen leen bëggeel ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi di leen mastu di jaale li ñu bokk ñun ñëpp mooy sunu papa coon ñaan yàlla jéggal ko yërëm ko def dee bi nofalaayam ci barke rasulillahi alayhi salaam jaale ko njabootam jaale ko mboolem koo xam ne njabootam nga mboolem koo xam ne soppi nga mboolem koo xam ne jullit nga waaye mboolem koo xam ne doomu aadama nga mboolem koo xam ne la koy jaale di ko di ko di ko jaale di ko ñaanal yàlla fu mu jëm gënal ko fi mu jugee ci barke yonente bi alayhi mu nekkoon koo xam ne baax na nit la koo xam ne fi ko yàlla sédd mu nekkoon fa mu ngi ci doon yee nit ñi. kon yàlla yàlla yërëm ko ci barke yonent salaam jéggal ko ay bàkkaaram def dee ñu naflaayam ci barke yonent bi la ko waxkat ba waxee woon innal manuuna hiya sabilun faman yakun bi faman yakun bi rahlihi fa ka an xalil waxkat ba waxoon na le dee yoon la ku ko préparé wu dafa mel ni ñàkk na ndax xamoon na dee ba bu set mu ngi lay gën jege benn géej la boo xam ne ku nekk am na fa kaas boo xam ne ko war a tànk te boo jotee da nga ko tànk naan ko fa force kon papa coon wàllam la jël keneen ëllëg dana jël wàllam yàlla ko fekki ëllëg ci aljanna ci barke rasulillahi te mu yéex fas yéen a ànd ak yéen bëggal leen ci yonent bi salaam ci keppaar sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci alhamdulillahi yàlla mi nga xam ne am lépp amal ñu ñun doomu aadama te ko neexoon mu bañ amal amal ñu ñun doomu aadama te bu ko neexoon mu def ñu ñu ay mala waaye yàlla deful loolu def ñu ñu ay doomu aadama te yàlla nee na lu ma bind doomu aadama ci gën doomu aadama laa teg ci kaw doomu aadama laa gën a fonk ndax def naa ci moom xam-xam def naa ci moom xel def naa ci moom bànneex kon doomu aadama boobu ñu yàlla def ñu ko ci sant di ko ci gërëm yàlla mi nga xam ne moo fi njëkk ñépp moom subhaanahu wa ñu koy sant ci amal gi ñu amal waaye tamit sant ko ci ni'matul iman tëbb gi nga xam ne yàlla tëbb nañu ko ci leego yonent bi alayhi salaam branche gi ñu yàlla branche ci leego yonent bi alayhi salaam yëgoo ne ku nekk yàlla nàndal na la ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yàlla taxawee ruux yi naan leen alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ruux yëpp dañ la tekk kenn yi mu ta wax ballaa ruuxu yonent bi la yàlla tëbb ci leeram ruuxu yonent bi ne ballaa yaay sunu borom yow yàlla yàlla nan leen ñu ci leeru yonent bi suñu roox mën a tontu ne yàlla mooy suñu borom kon ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu nandal ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baransuñ su baransuñu ci leeru yonent bi alayhi salaam ñu ngi koy sant waaye nit ki bi mu nekk ci biir yaayam 40 jours par 40 jours malaaka bu toll ni ouvrier bu toll ni malaaka rëy lool di liggéey ci biiru boo xam ne xat na ni biiru jigéen biiru jigéen waaye jigéen bu santiru na malaakaan ci biir di liggéey ouvrier bu toll ni malaaka di xëy di gont ci bureau bu xatee ni biiru jigéen te jigéen di santiru na malaakaan ci biiram di liggéey lu ko waral leeru yonent bi alayhi salaam nit ki nekk fa nekk fa yàlla di ka nandal ci leeru yonent bi ba ni mu ganesee àddina yàlla nandalaat ko ci leeru yonent bi alayhi salaam mu génn yàlla nandal ko ci leeru yonent bi ci la mën a yëkkati gémmiñam ñu jox ko weenu way juróom nàmp loolu yëpp mi ngi amee ci leeru Seydina Muhammad alayhi salaam mbokk yi bu toxutoon a yonent bi kenn du gëm yàlla ndax ku gëm yàlla rek yàlla la naanalee ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla yonent daf ne ana nuuru min allahi wal muminuna kulluhum min fajji nuuri yi man Seydina Muhammad leer bu bàyyi koo ci yàlla la waaye ñëpp ñu ngi bàyyi ko ci man man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ku am ngëm yàlla yàlla la naanalee ci leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon yàlla nee na bu ngeen bëggee ma fonk leen gëm leen da nga ñëw fonk ki ma fonk kan nga fonk yàlla mu ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu lakum wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim yàlla nee na bu ngeen bëggee ma sopp leen ngeen bëgg ma bëgg leen bëgg leen ki ma bëgg sopp leen ma sopp yàlla koo sopp yàlla kenn nga bëgg mu ne rasulillahi laa bëgg ndax bu ngeen amee jàmm yéen ko amee ci dara yi yonent bi alayhi salaam ndax ku am jàmm ku am kaaraange ku am sutura yaa ngi amee ci daraja yonent bi alayhi salaam yàlla nekkoon su ngeen bëggee ma fonk leen bëgg leen bëgg leen rasulillah alayhi salaam ndaxte sidna Muhammad mooy ambassadeur bi nga xam ne moo ñëw ci jaami wuutu yàlla ci ay jaamam moom Seydina mooy ambassadeur bi nga xam ne moo wuutu yàlla ci ay jaamam kon yàlla nee na atiu llaha wa atiu rasula topp leen yàlla topp leen yonent bi ba ngeen ma toppee bàyyi yonent bi alayhi salaam du ma nangu seen topp ndax yonent bi mooy sama buntu ku jaaru suma buntu nag man yàlla nanguuma la du ma la faale ndax dangaa tëb suma buntu ñu ne ko yàlla kuy sa buntu mu ne rasulillahi waxkat ba waxoon na ko anta baabul ilaahi ayu imriin man ataahu min gayrika laa yaqulu yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay buntu yàlla bi nga xam ne ku fi ñëw ku ñëw ci yàlla jaar beneen porte bu dul yàlla bu ko ubbil bunt ya ndax yow rasulillahi yaay buntu yàlla kon sayyiduna muhammad moomu mooy gën ci mbindeef sayyiduna muhammad la yàlla tànn ci jaam yi teral ko ku bugg yàlla teral la yàlla fonk la fonk la yonente ba alayhi salaam kon mbokk yi tabaarakallahu sayyidina Muhammad nga noonu yàlla ñu yàlla may cofeel ci yonent bi alayhi salaam yàlla defal leen jàmm defal ñu ko ci barke yonent bi alayhi salaam dëkkee ci réew mi di am jàmm ñi nekk bitim réew di am jàmm ngeen ñi am jàmm ñuy am jàmm télévision bi di Salam Vision di am jàmm ñu ñu fi nekk di am jàmm ci barke yonent bi alayhi salaam ziyaara soxna Fatou Faye ca Fatick taal bi Seex Sadul Abira ñu ngi koy ziyaara bu baax ak suñu tonton Serigne ca Dubaay moom tamit ñu ngi koy ziyaara di ko ñaanal jàmm tawfiq ak taysir ci barke yonent bi alayhi salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu